jërë ngeen jëf yéen ñi seetaan si Sénégal set ñu ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm di wax alhamdulilah rabbi alamin ginnaaw ba ñu jugee ci jàmm ak salaam euh, màggal euh, yonent yàlla Muhammad bi nga xam ne juddam lañ doon màggal si àdduna war nga këpp rawatina nag fii si Kaolack Kaolack nag bu ñu ko waxee xel dem si Medina Baye Medina Baye boobu nga xam ne kon Cheikh al Islam euh, Baye radiyallahu anhu bi nga xam ne kon nag ràññee nañ ko lool si màggal guddi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo waral Sénégal 7 TV dafay continuer ba tey rek daal di leen dëgtal xew-xew gàmmu fii si Medina ndaka noonu nag tey ñu am contentement ak mbégte bu rëy rëy daal di am gan suñu jotaay ngir waxtaan ak moom Kaolack waxtaan ak moom aussi si gàmmu gi kan mooy yonentu yàlla Muhammad kan mooy Maolana Cheikh Ibrahim ñu daal si waxtaan bu ndaw gàmmu gi njariñ gi ak euh, yenn projet fii si Kaolack waaye tamit am na taxawaay ba am solo si wàllum mbay ndax xam-xamam daanaka sax si loolu la màcc <laughs> dinañ dugg tuuti si actualité politique mu joxe si xalaatam ndax moom baaxoo na sax di waxtaan si wàllum politique wala si actualité tolluwaay réew mi di wuyoo si turu euh, Cheikh Baye Mbaye Niass alxawla kawlalaahi donc. nekk euh, xam naa dig ma dig ma. dig ma si gindi wala la Kaolack waa rek. <laughs> waxal la Kaolack mooy. incha allah Kaolack waa. Mm-hmm. donc bokk ak turandoo kenn ki nga xam ne kon moom mooy MC Niass bi nga xam ne kon nekk doomi Mawlana Cheikh Ibrahim maa ngi lay nuyu baax ma bàyyi la nga saafoonte ñu lay nuyu ñu lay seetaan Sénégal set. alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah gannaaw sant yàlla julli ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ummatu sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbooleem ñoo xam ne ñu ngi si suivre chaîne bi di Sénégal set rawatina yow monsieur Waly maa ngi lay nuyu. di la jaajëfal ci dalal bi nga xam ne dalal nga ñu ko tey fii ci suñu dëkk mi madinatu Cheikh Ibrahim. jërëjëf euh, ñu ngi am mbégte comme ni nga ko waxee baax waaye euh, comme jugee nañ ci li nga xam ni moom mooy si gàmmu gi. Euh, ma bàyyi rek nga nga am loo si sànn rek gàmm bu daan ñëw zikar yeeg nit ñi màggalee guddi yonent bi ak ni ko bàññee soon defee rek ma bàyyi rek nga am loo si sànn rek. waaw alhamdulilah gàmm moom. Mhm. Euh, bis la boo xam ne. képp koy doomu aadama rek war ngaa xam bis bi lu ko tax a jóg. Mhm. ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi moom la ñuy màggal. te yonent bi sallallahu alayhi lépp lu yàlla amal moom moo tax. yàlla nee na bind na lu baree bari waaye àddina bi yim bind def cee bokk waaye li tax mu fonk àddina bi ndax am na yeneen pays am na yeneen pays yu am waaye li yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon di dund ci àddina bi moo tax mu bokk ci li nga xam ne lépp lu mu bind rek moom la ci gën a bëgg te képp ku mu bind tamit moom moo tax koo xam ne nag daanaka bu yàlla yàlla moo tax mu amal la hmm. lim bind tamit moom moo tax mu amal ko kooku buñ koy màggal nit waru ci yaafuus moo tax képp koo xam ne danga bokk ci topp Mawlana Cheikh Ibrahim Niass loolu danga koy fuglu waaye dañ la ci tàggat nga judd ci yaru ci màgg ci hmm. ba képp koo xam ne njabootam nga nga bokk ci ak toppam daanaka mën nañoo xam ne sa feet bi gën a mag mooy gàmm loolu Cheikh Ibrahim def ci xërtal taalibe yi euh, jàngale ko waaye suuxat leen ci ndax bokk na ci ay waxtaanam weer yu màgg yi dafa bëri muy mel ni weeru koor dégg nga nga xam ne dafa am guddi gu màgg Cheikh Ibrahim dafay waxtaan ba wax ne weer woow lu muy màgg-màgg ak guddi goog lu muy màgg-màgg ki tax ñi amal weer bi wala ki tax ñi xam weer bi kon kooku yaakaar naa ne moo gën a màgg lépp kon ba tey rek ci njàngaleem Cheikh Ibrahim nee na ñaari nit daal bu ñuy xëccoo ku gën a jege yeneen bi rek yaa raw moo tax ñun weer bi weer bu màgg la ci ñun weeru mbégte la ci ñun te Cheikh Ibrahim moo ci njëkk am mbégte ndax moo jël weer bi daf ko weeram ba bu ñëwaan mu ndokkel ci boppam ngir cofalam ci bi sallallahu alayhi mm-hmm. muy ay kàddu yoo xam ne daf ko yëkkati muy ay abiyat tuddee ko hani an li ibrahima laaha xilaaluhu xilaalun bada linnaazirina jamaaluhu xilaalun rabii fii ijaa muhammadun fatammanal al bushra wa amma nawaaluhu mu ne moom cheikh ibrahim weeram bi ñëw na maanaam dafa jël weer boo xam ne weeru soppam la mais mu askane ko ci boppam ngir cofeel gi nga xam ne am na ko ci yonent bi sallallahu ko ndokkeel moom cheikh ibrahim ngir weeru soppam bi ñëw na loolu nag firiwul dara lu du mbëggeel te yàlla moo ñu wax ci alquraan qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah bu ngeen ma bëggee dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toppee yonent bi sallallahu alayhi rek topp gi mooy ñu bëgg ko topp gi mooy ñu sopp ko topp gi mooy ñu roy ko dégg nga bu ñu defee loolu rek mooy ne topp neen yàlla kon kooku lañ doon màggal fii ci madinati Cheikh Ibrahim moo tax Euh, mbégte lañ ci am euh, coono bu ñu ci mën a fekk coono bànneex lañ koy tuddee mm-hmm. te tamit dañoo am beneen gis-gis ci ñi nga xam ne dañ fi ñëw xataa mm-hmm. journaliste bi sax bi nga xam ne dafa fuglu gàmmu ñëw gàmm ngir def reportage ngir liggéeyam ñun liñ ko jàppee mooy ganu yenent bi sallallahu alayhi wa jamono baay bu gani ñëwaan dañ naan duyuf rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lañ leen tuddee maanaam ganu yenentu bi loolu baatu arab la boo xam ne moom lañ doon dàkkantelee ñëpp dégg nga ganu yenentu bi ganu yenentu bi fu mu waaye mën a jógee nekkal ci biir Kaolack sax jógee fa ñëw Madina pour gàmmu si yow considéré na la koo xam ne ganu yenentu bi hmm. bi nag moom yaakaar naa wax ci moom euh, lu waay wax ci moom du doy ndax koo xam ne comme li ma wax sànq moo tax ñi amal la li yàlla bind yëpp moo tax ku bëgg a topp yàlla moom ngay topp ku bëgg a jege yàlla moom ngay topp ah kon kooku moom euh, mooy lépp waaw euh, gàmmu gi nag alhamdulilah gàmmu neen ko ci jàmm euh, ci niñ ko daan defee at bu jot waaye nag euh, am na am na ci ay wàll yoo xam ne man ci sama gis-gis en tant koo xam ne acteur de développement di yëngatu ci ci lu bëree bari ci lu jëm ci wàll yokkute ba pare amee ay responsabilité fii ci Kaolack ak ci dëkk bi am na ay Euh, sell yu ma ci sell loo xam ne yow du ñàkk sax dal na la mhm. te loolu it euh, dañ koy wax ngir bëgg mu saafaraw ndax bu ma ko waxut fii dinañ ko wax feneen euh, mooy lan mooy bu gàmmu di waaj jot dañuy def ay ay réunion yoo xam ne ñu ngi ko tuddee ay CRD ay CND ngir waxtaanee préparation gàmmu gi mhm. yàlla def na na ren ñi def ko ak nouvelle gouvernement bi fi nekk Euh, ministre de l'intérieur taxawu ko muy monsieur Jean Baptiste Tine euh, am ci taxawaay nag boo xam ne ñi mus dem ci CRD yëpp reconnaître ne ne li musta am mooy efficacité bi ci am gaawaay bi ndax daanañ def CND ci dakaar di fa jël cinq heures de temps six heures de temps mm-hmm. bii quarante cinq minutes la am man nag yàlla def na sax maa ngi ci doog a teew ndax comme Medina dafa am buntu te pays bi dafa am nu mu tëddee dafa am comité de organisation bi nga xam ne moo yore wàllu gàmm gi muy COMAF ñu dénk leen ko loolu nag am na ay pàcc pàcc waaye nag en tant que man bu may wax damay wax benn en tant que citoyen mais ñaareel bi en tant que chef religieux boo xam ne fi la dëkk mais beneen bi tamit bi tax ma gën di wax mooy guvernement bi fi nekk tey dama bokk ci ñi leen teewal fii ci Kaolack rawatina fii ci Medina Baye. Mhm. ndax en tant que man maay chargé de communication bu Pastef Medina Baye. Mhm. ba pare nekk coordinateur du mouvement doomu daara patriote département de Kaolack. Mhm. kon euh, gouvernement bi fi nekk tey mën nañoo wax ne coalition la waaye parti bi nga xam ne moo porté gouvernement bi mooy parti Pastef ma gis ne nag euh, war naa mën a dem teew ci CND bi pour xool engagement yi nga xam ne dañ koy jël ci gàmmu gi li ci baax ñu rafetlu ko yi nga xam ne aussi safaal na ñu fexe nuñ ko joyantee parce que tamit gouvernement bi gouvernement bu bees la waaye alhamdulilah ci biir euh, kii CND bi ñu def Dakar ki nga xam ne moo jiite woon délégation bi di cheikh Mouhamadul Mahi Seyd Alioune Cissé di porte parole ànd ak cheikh Ibrahim Mamoun di président COMAF ak mbooleem commission yi ñoom ñoo njëkk a reconnaître ne ne ne ni mu demee nii musu ko musu ko demee. Hmm. ci benn ci gaawaay bi waaye tamit xarañte bi ñu gis ci ministre de l'intérieur. ba mu gaawal yëf yi ndax point yi nga xam ne dañ ko évacué woon fii ci Kaolack parce que di dinañ def fii ak CND comme ni ma ko waxee ak ak préfet daf ko gouverneur doo a dem Dakar euh, yi nga xam ne nag dañ koo évacuer ba nga xam ne euh, sotti na wax nañ ci ba d'accord yooyu bañ ñëwee daanaka posé waatuñ ko dañoo wax yi nga xam ne moom lañ bëgg ñu dem fa ak ñaareel bi mooy yi nga xam ne tamit dafa am jafe-jafe mhm. ndax ay demande yu ñuy demande la état da koy demande benn mhm. mën naa mu jox la genn wàll waaye li ñu gis mooy am na ci demande boo xam ne dañoo demande benn ñu jox ñu benn genn wàll te loolu mu saam kon loolu yokkute la hmm, muy lan mooy ku ne xam ne ne da ngay gis Madina bu gàmmu jotee dañuy soxla ñi dootuñ xajati ci néegi dañuy soxla ay bâche pour mën ko def ci mbedd yeeg ci yenn yi cent lañ ci laaj ministre bi validé cent cinquante te daawut am transport te am na transport mhm. am na tamit beneen amélioration bu am mooy journée xuds ku xam xuds mooy suñu mbokk waa Palestine yi nga xam ne Cheikh Ibrahim dafay jugee ànd ak njabootam ànd ak soxnaam ànd ak doomam ànd ak ay taalibeem dem ba ci xuds taxaw fa wanewu solidarité bi nga xam ne am na ko ci ñoom dégg nga loolu pour xërtal nit ñi ñi xam ne kat suñ mbokkee dañ leen war a jàpp ba pare accueillir fii ay doomu xut fii ci Medina Baye ñi dëkk fi ba am na si ñoo xam ne tey ñi ngi ci sëgi Medina Baye ñii fi lañ génnee àddina ñii bañ nekkee fii ba pare sax ba bëgg a génn daf leen a dimbale ci wàll moyen mhm. ñu dem ci yeneen dëkk pour def seen commerce wala ñu dem pour yokk seen xam-xam mhm. kon euh, ñooñu nag mu am journée boo xam ne dañ leen koy defal saa su nekk fii ci madina Baye daaw ambassadeur bi ak ñi ci aju dañ ne sax du ñu ñëw ndax jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy am ci yoon bi mm-hmm. maanaam bu ñuy dugg si Medina juri gàmmu duñu am escorte duñu am dara mm-hmm. dañ ciy daj coono bañ ko posé foofu ci CND bi mm-hmm. ministre de l'intérieur dafa jël engagement dina leen jox bis 33 place climatisées ba pare boole leen ak motard bu leen escorté Dakar Kaolack aller retour loolu gis neen na ren tax na ba mbooleem ambassadeurs yi nekk fii ci Sénégal ñëw nañu force délégation ñëw teewee journée boobu loolu bokk na ci yi nga xam ne daawut am te am na euh, yi nga xam ne daal euh, gis nañ ne am na jafe-jafe mooy li ma wax mooy li ma li ma la wax nii mm-hmm. mooy wàllu ndox ku wax gàmmu nag wax ndox te doomu aadama mënta dundu sans ndox ndax alquran daf ñuy jàngal ne wa naa min al maa i kulla cheyin xayyan lépp mm-hmm. loo xam ne dafay dundu ndox daf cee am daf cee bokk dégg mm-hmm. gàmmu gis nañ ne ndox mi am na jafe-jafe bu méttee métti nag te loolu lu ko waral mooy Kaolack euh, dix forage la am mhm. mais avant gàmmu gi dafa am benn forage boo xam ne daf cee paan te Kaolack bu duut gàmmu sax dafay am problème mu ndox mhm. rawatina nag bu gàmmu jotee mhm. waaye nag euh, li ñu ci li ñu ci méthode rek mooy naam ñoom xamoon nañ ne euh, gàmmu gi dina manqué ndox ba pare jëluñu ay matukaay yoo xam ne dina tax ndox mi du manqué dégg nga ndax matukaay yi mooy lan mooy ñu fexe am ay seetaan yoo xam ne dinañ ko mën a yokk yokk too bi ñu daan joxe ci seetaan mën a tasaaroo ci dëkk bi tasaaroo ci ndax gàmmu gi nekkatul Madina rek dégg nga nit ñi fu nekk la ñuy gàmmoo ci biir Kaolack te ndox nit daf koy soxla bu bëggee jaamu yàlla nit daf koy soxla bu bëggee noppalu nit daf koy soxla bu bëggee dund nit daf koy soxla ci lépp comme ni ko alxuraan waxee lépp luy dund rek ndox fokk mu bokk ci ndox moomu nag euh, jafe-jafe bi ci am man euh, xam naa ko ndax yàgg naa ko topp te keroog président de la bi ba mu fi ñëw ànd ak ministre bi Cheikh Tidiane Dieye docteur Cheikh Tidiane Dieye moo koy nuyu à passage euh, wax naa ko ko foofu ci ci ci jotaay bi mu ne ko ah yaa ngi def ay yaa ngi góorgóorlu waaye day bëgg neen nga bàyyi xel ndoxu Medina bi ndax Medina dafa am problème ndox ndox moomu daal euh, mën naa wax ne bu fekkee programme bi nga xam ne état bi jël na ko pour saafara. Euh, bëgg-bëggi doléance yi nga xam ne demandé woon nañ ko jafe-jafe ndox boobu daal tax na mën nañoo wax ne sax def na sabotage bu mag a mag ci li état bi liggéey te avant loolu tamit dafa am benn dossier bu ñu fa fekk ñoom mooy Medina ku ne xam ne ne population bi yokku na euh, place bi tamit yaatuwaay bi yokku na am na benn réseau bu fi nekkoon boo xam ne diamètre ay diamètre quatre-vingt moo ci nekkoon wax dëgg yàlla nouveau nouveau gouvernement bi bañ ñëwee dafa am document bu ñu fekkoon mu desoon signature rek pour ñu commencé koo liggéey signé neen ko ba fépp foo xam ne réseau bi dafa jaar ci biir Medina mu nekkoon 80 daf neen ko 110 fu nekkoon 110 ñu def ko 160. Mm-hmm. waaye jafe-jafe bi ba tey gis neen ne au lieu que sax mu tane mais dafa gën a dafa gën a critique loolu nag moom man damay wax ne toujours solution durable lañ ci soxla ndax. Kaolack ndox mi ñëpp a ngi koy jàmbat ci ay jafe-jafe ba dañuy wax ne sax feebar yu bëri yu tension yu bëri gis nañ ne ndox mi moo ko waral ñun li ñu demandé mooy ñu transféré nappe bi euh, réseau bi nga xam ne mooy jox Kaolack ndox ñu jëlee ko feneen te loolu ay étude wane na ko fu mel ni Malem odaar gis nañ ne am na nappe bu fa nekk mën na service Kaolack 50 ans te du am benn problème fu mel ni tey Taïba seen fu mel ni Wack Ngouna ndax ndoxu dakaar tey mi ngi jugee ba fan Kër Momar Sarr ca diwaanu Louga benn cinquante kilomètres wala benn quarante neuf kilomètres mënuñ fa jël ndoxu Kaolack changé ko ñu ñu mën a am jàmm loolu demande la boo xam ne ñu ngi koy demandé te tamit wax nañ ci ak ministre bi yore ndox mi te am nañ ci yaakaar ak suñu nouvel gouvernement bi. Hmm, d' loolu mu nekk ay yu am solo. Hmm. nga xam ne def nga ko si gàmm gi ak euh, Kaolack tamit yenn manquement yi nga xam ne am na ko. Euh, loolu nekk na lu am solo président de république tamit am na si ay diggé yoo xam ne def na ko si wàllum hmm. infrastructure fii si Kaolack. a euh, tamit ban appréciation ngi si def. waaw non président moom euh, damay wax ne euh, duñ def lu dul ñaanal ko yàlla yàlla dimbale ko gën ko dëgëral gën ko taxawu. Mm-hmm. ndax ay weer ci gannaaw rek ñëpp dañu doon jooy di jàmbatu ne lan moo tax président ñëwagul ba léegi man mii dañ ma koo laaja laaj ba man sax ñëmatuma toog nee na sa yéex a fii méttiwuñu waaw loolu loolu waaw loolu xalifa bi la man moom fi may waxee en tant que man responsable wala militant ci laay waxee mm. ndax tamit ñi ñi bu fekkee dañoo xam sa digganteeg nit nga nekk ci benn projet bokk ci ku ko gis yow la koy laaj dafay toog sax nit laaj la sax foog na ne yow président li mu ndekkee sax xam nga ko euh, amoon naa ci nag aw ma ci woon mosuma ci am benn jafe-jafe ndax dama ko xam nee naa ne président keroog la fi ñëw en tant que chef de l'état mais ñëw na fi ñaari yoon fii Madina 2020 ñëw na fi benn xale boo xam ne daf doom takk soxna président Ousmane Sonko yar ko mu tudd Baba ci am fii la dëkk nekk secrétaire permanent ci Dakar président moo waroon ñëw indi guru gi jomaay la yónni woon mi mu ñëw fii indi guru gi maag jomaay ak ministre conseil bu ñu wax euh, Abdoulaye Baro ñun ñaar ñoo yóbbu guru gi ak Aba ak ak Cheikh Aliou te lii mille 2020 la kon président Diomaye ñëw na fi yàlla def na ne tamit mille vingt 2021 ñëwaat na fi ànd ak Ousmane Sonko ci benn xew-xew bu amoon Madina dégg nga muy Cheikh Ahmed Tidiane al Khalifa kon ñaari yoon yooyu man lu ma fekkee la te maak ñoom ñoo ànd mu ñëw fi bii nag dafa nekk visite spéciale pour en tant que président de la République te ba mu ñëwee tamit kàddu yi mu yëkkati yi mu wax yaakaar naa ne ñëpp bég neen ci wax na ci biir wax ji ne dafa moom dafa sopp Cheikh Ibrahim te loolu man am naa ci lu ma leer wax na ba wax na sax ne moom euh, xaritam yi nga kër gi daf fi bëri xarit mm. dégg nga du ma wax ne man kenn la waaye xam naa ne man lu ci laa bokk ndax musuñoo toog te di waxtaan te waxuñ ci Cheikh Ibrahim mm. seeti naa ko sax biir Cap Manuel ñuy waxtaan ci biir kaso gi daf ma feddalil loolu wax ma ne ma laaj ma xalifa bi Euh, wax ma ci téere baay yoo xam ne mu ngi koy gëstu foofu noonu ci biir ci ci ci biir kaso gi loolu président man moom ma ko waxal boppam kon euh, cofeelam ci ma dina bàyyi comme ni mu ko waxee keroog euh, ci ñenn ñi la bees waaye man beesut ci man ndax depuis 2018 ma xam ko di jëflanteeg moom yàlla def tamit man sama intégré ci parti Pastef ci loxoom la ko yàlla jaarale ñaam ay relation seq jàmm di waxtaan amul jour boo xam ne wala bis boo xam ne waxtaan neen te waxtaanam tudd ci bàyyi surtout ci wàll Afrique aux Africains téere boobu sax la ma wax ne ma moom la doom gëstu sax ci biir kaso gi ngir bàyyi ni muy ni muy ni muy ni lu mu liggéey ci wàll lu ñuy wax intégration africain te loolu Baye amul ci bind ci wax ci mais daf def cee dafa dem ba nekk lu ñuy wax Euh, famille famille wàllu famille la ndax man mii tey mën naa am ay doom wala ay jarbaat yoo xam ne ñii Gaana lañ dëkk ñii Nigéria ñii Sierra Leone dégg nga te loolu dara boolewuñu lu dul Cheikh Ibrahim dégg nga kon te gis nga tamit parti bi ba mu ñëwee euh, gis-gis bi mu am ci boole Afrique dégg nga ba ministre bi nga xam ne dafa daam yore wàll affaires étrangères gisoo nu ñu ko defee ministre de l' intégration africaine et sénégalaise de l' kon dafay wane na rek loolu ñoom. li ñu wax ne bëgg nañ Afrique nekk benn te loolu fekkoon nañ koo xam ne muy Cheikh Ibrahim mu liggéey ci ba bind ci téere tuddee ko Afrique aux Africains ba pare yàgg cee def ay jéego dégg nga yàgg ci wax mus bàyyi mus na dem Saoudia buuru Saoudia bi laaj ko na ko naka jullit yi foofu ci Afrique mu ne ko jullit yi ña ngi fa di nekk jullit ñeneen ñu di jullit ña ngi fa di nekk leneen mu ne ko ah li nga wax nii lan la bàyyi na ko waxuma lu dul xaq daal ñooy jullit ña nga foofu di nekk jullit ñu dul nga fa daal mooy ne ñi ngi dëkk ci jàmm te loolu moo mus di am Euh, te loolu daal ñun ci lañ ñu yartal ci lañ ñu yar moom la ñu xam kon bu ñu gisee président boo xam ne dafa ñëw di gën a suuxat loolu ba pare euh, ba mu ba mu jëlee en tant que président de la république gis nga lu mu def tuur yi mu def yëpp mi ngi ko def ci suñu mbokk Afrique yi dem seeti leen waxtaan ak ñoom te tamit loolu lu rafetlu lu ñuy rafetlu la. d'accord comme ni nga ko waxee sëriñ bi mais ñu gis ne gàmmu bu jot. dañ daan gis taxawaayu euh, Serigne Baye Mbaye Niass MC nga xam ne kon Sénégal ràññee nañ ko lool euh, si taxawaayam Shababul Faydaati ak euh, taxawaay bi nga xam ne kon amoon na ko auprès de du président Ousmane Sonko ak coolu fi jotoon am yëpp boobale kenn gisi ko kenn dégg ko gàmmu sa Baye Mbaye ñas MC ndax yow xam nga ko baax jege nga ko lan ngay ma ndax si loolu. waaw moom day xam naa ne MC moom ñëpp namm nañu ko. Mhm. Euh, ndax pay bi pay waajuram la muy Cheikh Ibrahim ba pare mu am fi ay taxawaay yu am solo loolu yaakaar naa ne wax naa ci waxati ci euh, bu fi manqué gàmm euh, dina am lu bëri ci lum ci lum feeñ waaw ci wàllu organisation bi ci wàll yëpp ndax emut ci en tant que doomu Cheikh Ibrahim di ko taxawee hmm. waaye dafa am benn kuréel boo xam ne moom moo ko taxawal tuddee ko Shababul Fayda maanaam jeunesse su fayda bi hmm. waaw te ku wax avenir wax wax wax ndaw ndax waajuram Cheikh Ibrahim dafa yàgg am considération ci ndaw ñi ba wax na ay wax yu bari jëmale ko ci ndaw ñi muy xalawtul bihaari zaxiraati fa inna ni xalawtul xura wal mudna balhal jibaala ruumu ridal baari li nusrati diinihi wa ubrizu li jiilil jadidi misaala bàñes mu ne ñëpp xam nañ ci bàñes ci yàgg tukki mu ne tukki tukki yëpp yi mu jéggi frontière yi mu jéggi montagne yi océan yi mu dugg ci gaal yeeg lépp dara waralu ko lu dul nouvelle génération bii di ñëw mu wax leen fan la ñu war a teg seen tànk ci xam ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa waaye tamit ci nekk ay solution kon bu fekkee doomam ku mel ni Cheikh Serigne Mbaye mu nekk ndaw créer euh, mbootaay boo xam ne ay ndaw a ci nekk dégg nga mu ñëw nag ci jamono boo xam ne dafa am lu bëri dafa desoon ci Medina ci wàllu organisation ci wàllu sécurité mu ñëw créer benn groupe tuddee ko Shababul Fayda ñi taxaw faydu bi ci wàllu sécurité ci lépp ci wàll setal ci wàll organisation te sécurité lu ñëpp xam ne ne lu am am solo la mm-hmm. euh, mu manqué wax dëgg yàlla dina nekk lu métti ci ñun waaye nag moom lu jiitu muy dem ni tey tàggat na ñooñu ci liggéey bi ba nga xam ne bu fi nekkul sax dafay mel ni mi ngi fi. Mm-hmm. dégg nga waaye wax dëgg yàlla ñun moom waxuñ ko lu dul ne ko mu ñib mu ñëw ndax xamuñ fi mu nekk lu ko fi téye ndax am na jamono moom. Hmm. li ñu xamoon ne mooy ne dafa gàddaayoon génn dëkk bi. pour wax dëgg yàlla bañ ñi def ko ne ko su sudul noonu comme ni nga xam ne noonu la ñu bari génnee woon waaye hmm. gis nit ñu bëri ñëw nañ. moom nag lu ko teree ñëw. wax dëgg yàlla man en tant ku doomam wax dëgg yàlla xamaguma ko. maa ngi ko doom séentu sax nag ci gàmmu gi ndax gisoon naa benn kuréel ay taalibeem. Hmm. yu dajaloo ñëw dem seeti ñëpp ne dañoo bëgg ba signé sax benn pétition man signé naa ko euh, pour mu ñibbisi. Ah waaye ba ba def loolu ne dañoo bëgg Baye Mbaye MC ñëwaat def nañ loolu gis naa ñu dem ko def ko ci ay magam ak ay rakkam ak ay taalibam ak ay muxaddemu Baye mhm. dégg nga man bind neen sax yaakaar naa président de ak premier ministre pour wax leen ne leen dañoo bëgg a Baye Mbaye ñëw ñëwaat Baye Mbaye Niass MC dellu si waat. lan nga jàpp ne moo tax mën ta dellu si ak fan la actuellement ni waaw moom fu mu nekk Amérique la nekk. wax dëgg yàlla mi ngi Amérique. te tamit li mu nekk nekk Amérique mi ngi bàyyi xel pays bi ndax. bërki démb rek gis naa mu def benn live. di wax ci jafe-jafe yi may wax nii muy wàllu courant bi ak muy wàllu ndox mi te tamit loolu la mus di taxawee heure bu nekk dafay défendre Kaolack dafay défendre dëkk baayam bi waaw ak manière nag loolu nag moom beneen affaire la loolu mbiram mbiru boppam la waaye ñun daal bu ñu sañoon mu ñëw ndax euh, xam na ni daal bu fi nekkee dina am njëriñ lu bari bari lu mën a def te tamit comme lim doom rawale mooy projet bi fu mu tolloon ci ay jafe-jafe te yàlla def na ne fi mu ne mën nañoo wax ne ñoon ñi mu doon xeexal wala ñi mu doom bëgg a ñoo nekk ci pouvoir bi tey kon yaakaar naa ci ñu waroon a ñib njëkk ñib si ci la bokk raison bi ko téye nag loolu man xamaguma ko man naa am du ñàkk bu seetaanee live bi wala vidéo bi hmm. dina wax lan moo ko teree ñëw bu fekkee ci autorité yi ñoo ci war a jël ay taxawaay pour mën a ñëw ñu def loolu waaye daal ay mbokkam di ay magam di ay hmm. rakkam di ay taalibeem ah ba ci man mii ñi ngi sàkk pour mu ñëw mu ñëw mhm. d'accord jërëjëf xam naa fekkee am na leneen loo bëgg a sànni ñu ngi jëm si wàllum législatif ak taxawaay bi si am coole bari na réew mi ñu jël gaal di dem bari na accident yi bari na pëccxoo bi jaxasoo na tey lan ngay wax ak message bi ngay wax nga taal di tàggatoo ak waaw tàggatoo bi moom mooy gën a renforcer suñu engagement mhm. ci projet bi nga xam ne benn benn baat moo ñu ci dugal mooy fexe ba li ñëpp bokk ñëpp jot ci ndax loolu moo tax ñun ñuy def politique dafuñ politique ngir ut ci tur wala ngir ut ci sant wala ngir ut ci koom-koom ndax lépp loo xam ne politique daf koy joxe mën nañoo wax ne am nañ ko ci barke Cheikh Ibrahim. Mhm. dégg nga ci tur dégg nga ci am-am ak ci mën-mën waaye dañoo jàpp ne ñun ay serviteur lañ war a nekk pour nation bi. Mhm. rawatina tamit fii ci Kaolack ak fii ci Medina Cheikh Ibrahim dañ fi amoon ay suñu ay waajur yoo xam ne dañ daan taxawee politique bi dégg nga ñii. yàlla jëlee na leen fii yàlla yàlla yërëm ku mel ni suñu waaju Cheikh Cheikh Sëriñ Mamoun Niass. Mhm. ñëpp xam ko mu amoon taxawaay ci Kaolack yàgg revendiquer intérêt Kaolack dégg nga ñeneen ñi dégg nga ñu ngi jëm mag te lépp loo xam ne buñ koy dem ba mu jël ay mag war na am beneen relève ñu yaakaar ne ñun ak suñu yeneen morom war nañ ci mën a soobu ngir yeggali mission boobu dégg nga moo tax ñu dugg ci loolu nag pour Kaolack mën a gis boppam. rawatina madinat Cheikh Ibrahim ndax Kaolack googu Baay Ñas mi nga xam ne moo ko euh, bu ñuy wax kawlak tey moom la ñuy tudd dégg nga daf ci am dafa yàgg fiir ci Kaolack xam nga yaa ma dégg sànq maa ngi dàkkantele sama bopp Baye Mbaye Niass al Kaolack yi mooy la Kaolack waa mhm. loolu Cheikh Ibrahim ñees moo moo relevé woon défi boobu dafa am jamono ñu ne Sénégal euh, quatre communes moo fi nekk mhm. mooy commune bu gore ak commune bu Rufisque mhm. ak commune bu Dakar ak bu Saint-Louis. bàyyi ne leen déedéet moom bokk ci ñeenti commune yooyu moom ci commune Kaolack la bokk moo tax muy bind daf Cheikh Ibrahim al Kaolack yi. te loolu amul ci bind signé ko waaye dafa am ñaari barab yu mu dem dafa benn bis Baye Niass dafa dem fu mel ni Chine ba mu wàccee Chine mu am yëg-yëg ci Kaolack ngir Chine ak Kaolack ni mu soree mu def benn taalif di ci tudd Kaolack ne bi Pekeena min Kantuna bi Chine naa iyan wa kawlaxun tad'u qad abanta rihala pekin ak Canton ci biir Chine la nekk mu ne dox bi muy dox ci biir Pékin ak ci biir Chine mu ne dafa Kaolack dafa mel ni daf koy joor di ko oolu daan ko yow Cheikh Ibrahim Niass sori nga Kaolack léegi xam nga kon kooku euh, bëgg na Kaolack wax naa ne la bii ñeenti commune la mu ne Kaolack la dëkk moom bii mu dem ba Pékin mu ne fiir na ci Kaolack googu beneen bi mu dem fu mel ni Màkka Màkkatul Mukarram dégg nga waxtu arafa jot nga xam ne melukaan yi dafay dafay changé wu mu ne labbaytu talbiyatan min la arafa wa mun muntaha dunia ila arafa bii ci wàll zahir la ndax foofu dëkk àddina la mais xoolal fële ci wàll euh, lu ñu wax wàll diine la mu ne ba mu wàccee arafa ba sol malaan xarmalam bi euh, ñëpp weex sol seen yére mun ne loolu jox ko lu dul kawlax gi nga xam ne fa lay lépp di dajaloo comme ni nga xam ne ni ñi noonu leen dajaloo fii tey ci màkka kon bàññees boobu euh, dafa yàgg représenté Kaolack dafa yàgg représenté Afrique ndax nee na àddina bi Afrique moom a ci gënal Afrique euh, Sénégal moom ma ci gënal Sénégal Kaolack moo ma ci gënal dégg nga kon kooku kooku bu jëlee bu jëlee euh, buy revendiquer loolu ngir Kaolack loolu firiwul dara lu dul bëgg Kaolack moo tax daal euh, ñun ñi ngi wax ne Kaolack googu nañu ko bàyyi xel. am na ay jafe-jafe yu bëri yu mu am ci nawet bi jafe-jafe yi ñu am ci wàll ay tabax ci wàll courant ci wàll chômage te tamit kawlak mooy bassin agricole bu Sénégal du bassin arachidier bassin agricole la. ba léegi nag man bokk naa ci ñuy revendiquer na ministre de l'agriculture ba léegi tegagu tànkam Kaolack te en tant que ministre boo xam ne dañ laa dénk agriculture. Kaolack nu mu mel nekk bassin ara nekk bassin agricole ah nga nga nekk ministre boobu ba léegi pendant hivernage avant ak après yëpp gisaguñ la fi hmm. loolu moom man bokk na ci li may revendiquer ndax lu tax ndax bu fekkee dañoo bugg a am souveraineté alimentaire loolu Kaolack rôle bi mu ciy joué amul benn région bu ko mën a joué ndax fii naam dañ fiy bay lépp lu jëm ci culture maraîchère dañ fiy bay comme céréales dañ fiy bay tamit. même ceeb bi ñuy wax sax di ko bay ci waalo bi en tant que fleuve mën nañ ko bay fii ci Kaolack ndax fii Kaolack am na xeetu suuf yu nekk yoo xam ne mën nañ ko fa bay te tamit am na xeetu semence yu bees yu ñuy wax riz plateau ñu koy wax semence euh, nerika yooyu yëpp essayé nañ ko fii nii bay ko ci nawet bu mu mën fee dox rawatina nag gerte nga xam ne ku wax gerte wax chaîne de valeur wax valeur ajoutée ndax li mën a jur ci njëriñ kon ministre bu mel noonu ñu dénk la loolu avant nawet bi jusuñ la ci digg nawet bi nii jusuñ la après nawet xaw ma ndax dinañ la gis waaye ñu ngi koy wax ne ko yaakaar bi président de la république am ba dénk ko ministère bi ba pare am objectif naka la ñuy fexee ba am souveraineté alimentaire te souveraineté alimentaire bu ñu ko amee dina mën am souveraineté économique ndax mbay loolu lay dajale c'est-à-dire ñi ciy joué dañoo bëri dina am transport boo bayee ba pare balaa ngay bay di nga dugal industrie ndax ñi nga xam ne dañ ñëw foofu di bay seen xam-xam ay artisans yoo xam ne ñoom ñooy defar matériel agricole bi ngay bàyyee. Hmm. bu fekkee dangaa ngaa bugg a euh, def lu ñuy wax agriculture moderne di nga soxla ay électricien di nga soxla ay ay soudeur dégg nga di nga soxla plomberie bu paree nag nga soxla population bi groupement de femme yi ci yóbbu jaay bi dégg nga ak supermarket yi transport bi dégg nga ba ci usine bi ak lépp kon mbay yii yëpp daf koy boole kon jàpp nañ ne daal ministre bu mel noonu waruñ ko dénk lu mel ni. Euh, mbay mi. muy négliger Saalum mën nag loolu laa gis donte ne gouvernement bi def na ay jéego yu am solo ci wàll mbay mi ci wàll yokk engrais bi ci wàll yokku jiw bi ak tamit fexe mu dem ba ci baykat yi mais moom gis naa ko mi ngi def ay visite naam bañ koy wax ne sax amut fu mu dëkk mm-hmm. waaye. agro businessman yi lay dem seeti te agro business yi ñooñu am nañ li ñu am ba pare ñu ci ëpp ay industrie ay kii ñoo nekk ci ñoom ay bailleurs yoo xam ne bitim réew la ñuy dëkk mm. dañoo war a commencé ci lu ñu wax agriculture familial ñi nga xam ne dañoo nekk ci àll bi nekk ci ron datt yi nekk ci village yi ñu fexe jàppale ñooñu ndax ñooñu problème yi tracteur da ngay gis benn benn commune boo xam ne am na soixante-dix village amul benn tracteur dégg nga ba ñu ba ñu dañuy bëgg a bay mais nawet dafay mujj paas sax te duñ mën a bay kon nag bu fekkee li président de la république dénk ko def cee bëgg a résultat na gën a wàccaat ci terrain bi mais waxuma terrain boo xam ne mooy ay businessman na dem seeti ñi nga xam ne ñooy les vrais paysans loolu daal la am lu may wax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mm, ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax moom mi nga xam ne kon moom mooy. Euh, Cheikh Baye Mbaye Niass al ki nga xam ne kon moom lañu doon dalal suñu jotaay ci gàmm gi ñuy sant bu baax a baax kon ki nga xam ni moom mooy euh, Eva business moom mi nga xam ne kon li ma sol ñaa ah, euh, moom moo ko daal di ñaw. moom fii hmm. nag la nekk fii ci Kaolack moo ñu habillé. yéen ñi nga xam ne aussi bëgg ngeen peut-être sol si yi mën ngeen ko woo si 77 412 08 50 voilà di gërëm jéey si caméra bi. di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a faraloon si teewlu bi di leen jaajëf bu baax baax si beneen jotaay si Sénégal 7 TV jaa ngeen jëf